mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di leen ziar ci koor gi bu baax di ñaanal ñëpp jàmm di sàkku ci ñëpp ñaanal jàmm ñu ñëw ci 30 minutes chrono comme ni nga koy defee alxames junne bu 21 heures jotee ñu fa yéene ànd ak yéen ci solution info TV léegi nag li wala fi naan wurawe nee na këng waxu mag dem na ndantaal lu waa doon jaay léegi mu lamb ñu jëm ci ay élection élection yoo xam ne élection jàll na fi 1960 ba tey mais élection bu mel ni mosu fee am mooy Sénégal nekk ci tournant maanaam war a des ak li fi ne wala jàll ci leneen changement wala continuité lu tax ma ni élection bi mosu fee am buñ koy méngale ak atum 2000 alternance la atum 2012 ñu newaat alternance est-ce que Sénégal dafa wér wéy rek di nekk ci ay alternance parce que ñaari alternance yu ñu am yépp li mu ñu jëral gis nañ ko ci Wàdd ak Macky tey jii est-ce que waruñu jàll ci alternative maanaam alternance ak alternative du benn parce que alternance foofa dégg rek mooy am na ku dem am ku toog waaye la fa newoon jugu fa alternative nag mooy jàll ci leneen léegi ñu nekk ci peuple bu difficile peuple boo xam ne dafa doon peuple conservateur boo xam ne tey jii bu ñu dëkkee sax ci kër wala ñu nekk ci bérébu liggéeyukaay sax da ngay gis ni dañuy duñ am fitu sax bàyyi dem ci leneen quoi parce que ñun on prend mooy de risques parce que njariñ loo fekkee lii bu ma ko defee lan moo ma ciy fekk dangay gis sax koo xam ne tey jii danaa ci béréb bi la dëkk wala toxu dem ci beneen bërëb mun na am sax fu mu jëm moo neex moo dàq sax fi mu jugee mais xel mu rëy ak xalaat. peut-être léegi génération bi sa xaw na changé mais suñu waajur yu bari yooyu xawoon na la noonu tardeel Sénégal gënoon na fi neex lu ne gënoon na fi yomb mais bañ a jóge ci lii rek dal ci leneen dafa tardeel ñu bari foofu la lañu tubaab yi mënee mooy tubaab yi bu changement jotee dañ koy def bu nee la depuis 60 ba léegi quatre président de la république du Sénégal am 64 ans après. mooy wane ne ñun dañoo hostile ci changement ñemewuñu changement dañ ko ragal loolu nag li ko indi mooy déjà cosaan suñu baax ak doylu bi ñu doylu suffisance yu ñu am waaye bu ñu xoolee 64 ans après dimanche bi ñuy dem ci élection war nanu natt bi ñu amee indépendance ak tey jii est-ce que ñi ngi avancé est-ce que ñi ngi yokk est que système bi fi nekk depuis 1960 ak tey jii. mooy système mu tubaab yi ñuul yi man dama jàpp ni système bi fi tubaab di nga dafa am lu Serigne mu sa wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum bi ñuy toll ci indépendance ñu bari naan l'indépendance sa un mal nécessaire nañ ci dem neexul waaye nañ ci dem waaye moom mu amoon ci ay réserve ci ñi ñi war a dénk suñu réew mu demoon sax ba ñenn ñi jàpp ñi sax dafa farak tubaab yi mais histoire jox na ko raison. ci bi Senghor ñëwee Abdou Diouf ñëw Lay Wade ñëw tanewul sax tubaab yi ba ci Macky ndaxte ay tubaab yi ñuul lan ndaxte danoo roy ba dàq lépp loo xam ne dafa bonoon ci tubaab yi dañ ko fee bàyyi maanaam lépp lu bonoon ci tubaab yi dañ ko fee bàyyi mais li baaxoon ci tubaab yi tubaab dañ ko yóbbaale Senghor jëfewu ko Abdou Diouf jëfewu ko Lay Wade jëfewu ko Macky Sall jëfewu ko li bon ci tubaab yi mooy noot sa askan li bon ci tubaab bi mooy impinité li bon ci tubaab bi mooy injustice parce que tubaab bi noonu lañ doon def suñu maam yu ñuul yi fii moo waral ñu faagaagal Mamadou ja faagaagal waa PAI yi faagaagal Cheikh Anta loolu ñan ñoo ko def mooy tubaab yi ñuul yi ba ci moomu lamin Gueye loolu tubaab yi ñuul yi parce que loolu lépp mu ngi amee ci nguuru Macky sàll nguuru Ablaye Wade nguuru Senghor ak Abdou Diouf lu tax ma leen di tudd ñoom ñëpp naam Macky fekkewu ko mais mburu foofu ko farine benn lan mooy système libéral ak système socialiste yi léegi senegal dimanche bi ñu jëm est-ce que dañuy di des ak loolu ci système d'accaparement mooy lépp lu baax élite bi moom moo ko moom golo di bay baabun di dundee la waykat ba doon wax naan néew borom doole yi ñu ngi dimbalante waaye ñun néew di doole yi fu ñu jëm dafa jot nag bii nag ñu dimbalante parce que réew mu ne la 70 pour cent ay jeunes la ñu jeunes yooyu tey jii dañoo war a jël seen destin en main nan lañ koy jëlee moo ñu xool lan la seen baay daj seen maam lan la daj ak ñoom lan la daj est-ce war a dund li seen baay dundoon dund li seen ndey dundoon dund lu sunu maam yi dundoon ci Sénégal boo xam ne dafa war a am pétrole am gaz. Sénégal boo xam ne les ressources halieutiques maanaam li jóge ci géej gi ñu dem ba tubaab yi ëppal ñu doole suñu géej ñu mel ne des étrangers su suñu dëkk un étranger parmi les siens li Seydou Lamine Niass bindoon ci livre ba maanaam juddoo ci réew màggee fa amoo fa baat amoo fa yoon nekk fa doxandéem est-ce que danoo wéy di dund lu mel noonu looloo tax élection yi ñu jëm doon élection yi déterminant parce que pour la première fois au Sénégal ñi dem élection le président sortant bokkul. maanaam ki koy organiser bokkul Senghor ba muy organiser élection moo nekkoon le président sortant Abdou Diouf Laye Wade ba ci deux mille dix neuf ak Macky mais deux mille vingt quatre mu doon lu fi mësta am te lu mësta am bu amee rek daa am lu tax lool nag li ko indi mooy détermination peuple Sénégal mooy le président de la République Macky Sall bu nekkul candidat du question mu moo ko bëgg dafa fekk ni ñun ñoo ko xeex dafa fekk ni ñun ñoo ko wax dafa fekk ni ñun ñoo ko jëf. ba bis ñëwul le trois juillet mu taxaw ak sénégalais yi ne leen mënatuma am troisième candidature naam bëggoon na sax euh, ne un mandat cadeau ndaxte élection yi ci yoon buñ ko organisé woon le 25 heure bi jàll nañ ci leneen tey ji bu pexeem jubóom moom Macky Sall élection yi le 2 juin lañ koy organiser bu pexeem juboon tey ji le 15 décembre la lañ koy organiser ndaxte ba ñuy waxtaanee ci assemblée nationale di reporter élection moom ay pexem nekkul woon organiser ko le 24 déedéet mukk ci àddina la waaye conseil constitutionnel moo taxaw ak détermination peuple bi mooy ñeenti xale yoo xam ne faatu nan ci fan yi ñu weesu loolu moo indi élection yi ñu amal ko tey mais bu doon pexey président Macky Sall ak ñi mu àndal tey jii élection du am candidat nag di Amadou Ba ñu bari nee nañ du Amadou Ba mais dama gëm ni Amadou Ba mooy candidat am parce que ku amul la la gënal am lu fi sës te nee na moo fi sës kon amul lu ko gënal mu ne du candidat du cœur mais candidat de raison la pour pourtant Amadou Ba mi ñu bari dañuy wax ci candidature am waaye moom sax bu sañoon xanaa du nekk candidat parce que moo fi njëkk a nekk di défendre le troisième mandat Amadou Ba dafa défendre le troisième mandat kon tey ji bu pexam matoon Macky mooy nekk candidat kon tey ji on peut dire que c'est un candidat par défaut parce que nag mosul taxaw mun ñu damaa bëgg doon candidat wala dama bëgg doon lii mais le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'argent le pouvoir ça s'arrache dañ koy xeex kon tey jii li fi jaar yëpp mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko ñu gis ay tappale gis ay fen ba bis ñëw ñu setal leen witt dugal am loi amnistie loi amnistie boobu tey jii fi mu ñu war a yóbbu mooy sunu nguur dañoo yab maanaam dañoo jàppe ay nit yu am amnésique yu gaaw fàtte pourtant président Macky bi muy waxtaan ak BBC BBC démb nangul jéggalu la peuple sénégalais nee na du jéggalu du baalu kenn parce que amul regret Macky nan nga mën a taxawee nga ni amul regret ci 84 morts de 2021 à 2024 nan nga mën a waxee ne amoo regret ci mille et quelques jeunes yu nekk ci kaso nga xëy bàyyi bàyyi lent amoo àtte nan nga mën a ñàkkee am regret. ak rëcc ci ni nga doxalee sunu réew ci réew moo xam ne doonoo dem ba xàmmeetunu justice ak administration dem ba ay décision de justice sa nguur na du ko saba si Faye Ousmane Racine Thior Dakar ñu rocc Ousmane Sonko ci liste électorale ci nguuru Macky Sall la xewe teguñu ko fenn nguur goo xam ne lépp ci lijjanti dañoo jàpp ni moo ko lii parce que élection yi sax bu Ousmane Sonko nangu woon ñu lijjanti ko mooy Ousmane bokk Karim bokk ñu jalgati yoon dem ci élection mais malheureusement heureusement réew mi am na ci ñoo xam ne ñi ngi bañ ba tey ñaani mi ngi bañ ba tey te am na ñoo xam ne honneur moo leen gën a prestige parce que prestige mooy li ngay tëg bët ci le plan matériel yére bi ngay sol dal yi ngay sol ak alal ji nga yor nguurul rek ak àddina mais honneur mooy ngay sàmm sa ngor ak sa diine ndax bu ëllëgee way wi des fi président Macky Sall li mu waroon a xam mooy utul waru woon ut ngóor ci li ko dese woon ci réew mi mais way la waroon ut waay way wa nen na way wa dee na way wa niil na mënatul ne mënatul rafet ci xare bi parce que li xew nii yëpp du Macky moo ko bëgg ñun peuple bi ñun ñoo ko bëgg mooy waxkat yi ak doxkat yi ak defkat yi jël rapport de force utiliser ko contre moom mais li xew ci nguuru président Macky Sall mooy nguur goo xam ne tey jii. dem nañ fi Covid 19 tëj ñu ñun ñëpp suñuy ndey ak ñuy bàyyi am ñu ci faatu kenn mënatul dem réew ak réew adduna bi yëpp bloqué naka te ñu ngi sàcc sunu xaalis te ba tey jii ñooñ kenn tegu leen daan mal gouvernance boobu lan bëgg mu jóge fi demoon na ba am nit koo xam ne da doon dem di rocc ji xaalis sa bis bu ne cent mille francs ci xaalisu Covid. boobu ñun ñu ngi bëgg a dee ak stress di compter nombre de cas wala nombre de morts tey jii du cour des comptes du benn rapport boo xam ne génne nañ ko pour ñooñu yóbbu leen ci yoon kon ñii est-ce que da leen fi war a bàyyi ñu kon ne du ñu noot ginnaaw bi ñu rey suñuy doom ah ginnaaw bañ jàppee suñuy doom ci kaso ginnaaw bañ tuumaalee ay gor est-ce dafa war a continuer di accepter système boobu du continuer système d'accaparement nga gis nit koo xam ne tey ji fonctionnaire la mën a nekk un milliardaire est-ce que danoo war a continuer noonu dimanche danoo war a tànn élection bu ne am na fi mais bu mel nii mosu fee am léegi nag le peuple sénégalais ñoo war a xool fi ñu jëm waruñu ragal fi ñu jëm ëllëg même ñun bu ñu war a nekk la génération sacrifiée pour nos enfants wala pour nos petits enfants ñun lañ ko def mais man dama gëm ni li système bi li ñu jot dund ak système bi fi jaar rawatina nguuru Macky Sall waratuñ ko dund parce que nag nguuru Abdou Diouf mën nga wax ni administration mi ngi fi woon justice mi ngi fi woon ak yeneen ak yeneen Senghor yaa ngi daan sentir état taxaw mais bi libéraux yi ñëwee ñoom Macky Sall ak ñoom Karim Wade ak ñoom lii mais lépp dafa nërmeelu il faut avoir le courage de le dire administration baaxatul. justice bi doxatul bëgg lu yomb toog muy dox tëdd muy naaw xew ci seen nguur ku far ak ñoom loo def dagan na waaye ku far feneen loo def bàkkaar la ci nguuru Macky Sall la amee sénégalais yi waruñu fàtte ni ci nguuru Macky sàll ibbi nañ fi ay agence yu bari pour l'emploi des jeunes ay DER ay fu ne agence yooyu teewul ndaw ñi mbëkk nañu gaal loo ca yi dem di dee ci géej gi ay junni ndaw nguur gi mosu leen a dajal musu leen a masawu ay doomu Sénégal nguur googu est-ce ko fi war a bàyyi système boobu est-ce que war a continuer di ne xale yi di dee tey jii ñaata ndaw ñoo ñàkk seen liggéey ci infrastructure yi ñi ñuy wax TER baax na berte baax na mais est-ce que am na étude d'impact économique parce que fépp fu TER jaar wala berte ay nit a fa dëkkoon ay nit ñoo fa doon liggéeyee ñooñu ñu est-ce que nekkul ñoo ñoo dem ci géej gi. soriwul liberté 6 mi ngi nii ñaata nit ñoo fi doon yëngatu feneen ak feneen Kër Masaar keneen ak keneen sénégalais yooyu nguur gi joxu leen liggéey da leen waroon a sàmmal seen liggéey mais ginnaaw ba leen fa jëlee lan la leen jox lan leen teg seen loxo bu ñu waxee ñu ne indemnisation te réew li koy tabax mooy sàmmal nit ñi liggéey parce que man gëwma nguur gi joxe liggéey day fexe ba li fi nekk ci wàllu emploi ñu dooleel ko ah ñu ne Sandiogou ah ibi solution taxaw na ñaata nit ñoo fi ne léegi nan créer les conditions pour que saa am doole ba mën a jël ñeneen bu boobaa nguur gi mi ngi joxe liggéey mais indirectement mais tey këru liggéeykaay yëpp ñi ngi yëngu ak di yang-yangi loolu dañ ko dund ci nguuru président Macky Sall dund une arrogance une insolence ak suffisance jox ñu ñu respect benn yoon loolu dañ ko dund ak lépp président de la république Macky Sall te Macky nag mooy Amadou mooy Amadou parce que Amadou c'est l'incarnation du système mooy impôt domaine ñaata coowal suuf moo fi am ci réew mi te bu ñuy wax suuf wax impôt domaine bu ñuy wax ministère des finance wax suuf ak xaalis Amadou jiite na ko yan problème lañu régleel yan problème la ñu réglé loolu il faut ñiy wote ñu bàyyi ci xel il faut être courageux ji nga jamono yi dafa laaj fit ak taxawaay ay neutralité amul ji nga booy yemale ñaar ñu yemul rek am na ku la neexul wala nga am koo bëgg te ñemewoo ko wax il faut avoir le courage d'avoir un choix nit day am choix est que li ñuy dund nii ñu dem ba école privée. école publique ñu privatiser ko léegi ku am doom privé nga koy yóbbu alors ko ñun ñëpp public lañ jàngee pourtant li ñuy gañe ñun weer bariwul mais da ngay transporter da ngay yóbbu say doom école dund gi ñu dem ba sàkku ceeb di jar vingt cinq mille francs waxuma la le riz parfumé da ngay wax ceeb yoo xam danaan jar quinze mille quatorze mille treize mille léegi boo nee vingt mille et quelque loolu mooy nguur gu dox loolu la sénégalais bëgg mu continuer sénégalais yi dañoo war a continuer di am ay Mamadou Massaly ci nguur ñi sàgg nit ñi ay Farba Ngom ñu ñëw fekk seen kër ay un milliard kër gi ñuy sàcce un milliard wala huit cent millions kër googu ñaata milliards lañ fa làkk ba tey ji kenn leeraluñu jamono jooju des jeunes innocents ñu téye leen ci kaso ba heure bu leen neex rek ñu bàyyi leen est que dañoo war a continuer ak loolu. ki ñu diggoon vingt cinq ministres tey jii ñu dem ba presque quarantaine de ministres chargés de mission des ministre délégués ministres conseil le train de vie de l'État boo leen gisee tey jii ñu génn le président de la République ngay foog ni buur mooy daagu pourtant Macky waxuñu woon loolu te tey jii ñu ne ñu léegi war ngeen continuer ak loolu nguur goo xam ne dafa dugal ci Sénégal li naan ethnici ethnicisation maanaam ñu dem ba ethniciser réew mi léegi man Omar léegi damay toog di xalaat ni man wolof laa parce que benn Mouka Bokar Thiam un fou de la république koo xam ne nitewul xamul àddina yaruwul léegi mën a taxaw naan non menuisier yi maçon yi nekk uroso gi yan wolof yi ku ci wootewul dinañ ko defante ak yéen jamono ji àdduna bi ñépp dugg ci économie numérique numérique laa la wax économie numérique xam ne léegi technologie de l'information mooy xarale yees li ñoo doxal lépp ci àddina nga xëy mën a tëj internet ki xamul lu xew pourtant bi ñuy changé ministre changé wuñ ko est-ce que dañoo war a continuer di am ku mel ne Moussa Bocar am ci réew mi il faut voter contre ce gars te li mu def ñi mu àndal dafa mel dañ ci ànd ak moom xëy mën a rocc licence su tele lu mës a am ci Sénégal rek Moussa Bocar moo ko def luñ fi mës wax mësul wax moo fi xëy xëy xas sëriñ bu bag daara ji Moussa Bokar mi moo ko def ñëw créer ci droit loo xam ne mës am ci droit mooy présomption de culpabilité Moussa Bokar mii moo ko def est-ce que danoo war a continuer di am ku mel ne Moussa Bokar Thiam loolu ku ko bëgg ànd ak Amadou man du ma ne kenn war a mais damay la il faut ñu taal xel xam fi ñu jëm est noo war a am un Mame Mbaye Niang bi continuer ana xaalisu Prodac est-ce que war a xëy di am benn la gosse là de parcelle keneen keneen boo doon lim du jeex ci nguuru Macky Sall te ñooñu buñ fi mais buñ fi bàyyee système bi ñoo ñooy continuer di ñu diriger di ñu kokkali di ñu saaga di sàcc suñu alal sénégalais yi nekk leen ay nit di nga ñaara fi ne wooteel système bi mu toog fi lan doon dund ñu dund ko ji nga ñun ñi lan waroon wax en tant que chroniqueur wax nañ ko ñi waroon dee ci mbedd bi dee na ñi waroon dugg kaso dugg nañ nit ñi nag duñ fi nekk di rey seen bopp lu nañu wax ko sacrifier seen bopp ay Sénégal waaye di delloo Sénégal ci li ñu weesu bis bu ñu ko defee ne ku ne pare jël responsabilité am ñu xam ne ñun bëggatuñu lu baax ñun bëggatuñu avancé ñun danoo bëgg ñu ñuy noot di ñu sàcc di ñu rey di ñu kokkali di nga néew di doole yi nanu taxaw xam fi ñu jëm mooy fan du mën a nguuru Macky Sall li mu def yëpp baaxul de y a bien mais lu mës am ci Sénégal depuis 60 ba léegi mu am ci nguuru Macky Sall Macky mi bu nekkoon candidat mënul défendre sax son bilan devant les Sénégalais def na fi lu baax def na fi TER def fi BRT mais nit ñi sax bëgguñu ko parce que bi ñu koy fal la lañ doon xaar ci moom réforme des institutions sénéri mais bi mu yónnee ñoom Amadou Mahtar Mbow ñu doxal ko réew mi ay mag ay kilifa yu am centaine d'années bi dafa ñëw ne lu ma neex laa ci tànn non mais koo koy léegi nag heure bi jot na heure tànn jot na heure taxawaay jot na taxawaay jot na kon bi ñuy dem dimanche nañ jàpp ni. système bi du rek Amadou Ba sa Seck système la idri sa Seck système la xalifa Sall système la système la ku woteel Khalifa Sall système bi nga woteel léegi nag bu leen neexee ngeen wooteel ko ku woteel Idi système nga woteel anti système yi mooy les candidats de yeewi ñoo ñooy anti léegi sénégalais ñoo tànn su bu leen neex léegi ñoom ñooy xool fan la ñu jëmee léegi nag ci diggante système bi ak anti dafa am lu ñuy wax troisième voie ñoo xam ne doo xam foo leen ñu féetale mu ngi mel Pape Djibril Fall wala nga jël ku mel ne Serigne Mboup foofu nag la opposition war a teeyee mooy tey ji ku mel ne Pape Djibi boo xoolee campagne am dem na sax banaan naan jomaay nañu def plateau alors que jomaay c'est pas le candidat du pouvoir tey jomaay bu toogoon a Pape Djibi lan lay défendre parce que mosul exercer pouvoir mosul exercer pouvoir léegi yow nga ne ko ñu débat débat ci lan après y a problème ça veut dire que politiquement il est nul parce que loolu. ku xam politique dëgg-dëgg waru ci woon sax dugg bu dee moo ko wax aussi léegi nga jël ko moom pour man candidature lenn moo taxoon ñu dugal ko ci politique ci li ma xalaat mooy danoo jàppoon ni dafa sonko sonko lu ba nekk sonko alors ko sonko gaa yëpp mat nañu président waaye sonko dafa ëpp président mel na moom yombul mais pourtant mu défier le un jeune de sonko mooy le candidat Diomaye loolu erreur politique la. te li naan Pastef jeunes yi ñoo leen topp pour man jeunes yi moo taxoon ñu dugal ko pour que mu am lu mu effrité ci électorat jeunes yi seetloo bi mu ñëwee ñaar la song ci politique jeunes yi ak Touba fi ñu gën a yaakaar ne Pastef mën na fa am doole foofu lañ ko duggee mais malheureusement doxul da ngay xool sax ñiy analyser danaan la Pape Djibi am na sens am na lii parce que les jeunes yan jeunes ñoo ko topp wante dëgg yan jeunes. yenn jeune plus fort la génne woon tey jii dem na élection mais pour man bu ñu ko bàyyee ci terrain bi rek c'était juste pour que mu am lu mu wàññi ci électorat Pastef parce que moom ba mu dalee opposé ba léegi ci Pastef la ne xëy na fi benn jour attaqué waa Casamance xëy tamit nekkaat ci dem ci benn cérémonie victimisé wu fa maanaam moom daf mel ne dañ ko ngemb rek na ko yow fexeel ba. di wàññi doole Pastef kon il faut comprendre que du rek anti système système bi mais daf ci am ñoo xam ne da ngay foog ni ay anti système lañ fekk ñu ngi si système bi mais da leen dugal pour ñu effriter Pastef beneen bi sama analyse la ah, je fais de l'analyse je ne dis pas que mooy lu factuel mais boo xoolee ni situation bi tëddee da ngay xam lu tax ñu sànni Pape Djibi ci géew bi te boo déggee discours am après da nga koy comprendre parce que wax feeñ parce que rarement. ngay dégg mu attaquer le candidat du pouvoir man mosuma ko dégg mu wax Amadou Ba alors que pour un opposant le candidat du pouvoir mooy sa adversaire mais pourquoi il attaque Diomaye da ngay comprendre lu xew beneen bi ci topp Serigne Mboup ñu bari ñu ngi naan candidature Serigne Mboup mais le kàndaatul Serigne Mboup lu tax sëriñ Mboup ñëw rek ñu sànni ko ak campagne de com bi parce que démb dama déglu ci wàll fajri benn émission bi am ci rajo bi Ablaye Bob di ko def ñu invité benn nitu Pape Djibril Fall ak Doudou Coulibaly bi ànd ak Serigne ñoom ñaar ñëpp bi ñuy commencé seen émission ba émission bi di xaaj ci programme Diomaye ci programme mu Pastef rek lañ doon dal ma ne mais le problème c'est quoi mooy ñaari invité yëpp mooy ki représenté Pape Djibi ak ki représenté sëriñ Mboup. ci Pastef lan doon dal jomaay lan doon dal loolu dafa laaj njàngat léegi nag sëriñ comme ni ma Pape Diouf ko indi pour jeunes yi mais sëriñ pour man dañ ko indi pour daara ji boo xoolee xam Pastef ak Modab ak Touba dëkk diine yi tu Pastef dafa am doole même boo xoolee prison bi ñu ci nekkoon sax ay doomu daara lan pour man kandi pour man doole boobu fu am foofu leen bëgg wàññi tuuti moo tax pour man candidature Serigne Mboup ñu fexe ba mu am ak le secteur informel bu ñuy wax secteur informel jeunes yi la te ñooñ ñoo gën a topp Pastef léegi ñu ni leen képp koo xam ne secteur informel nga bokk mun nga gis sa bopp ci Serigne Mboup wala képp ku ne ci daara mun nga gis sa bopp ci Serigne Mboup loolu la ñaari candidature yooyu il faut que xam ñaari candidature yooyu ak seen i nit parce que man damay déglu débat yi. parce que buñ ko waxul woon man duma ma ko wax mais seeni nit yu ñuy envoyé man dégguma sëriñ ah mu dal ci sonk wala keneen ak keneen mais nit ñi ñuy envoyé jomaay jomaay jomaay pourtant ñoom bu ñu waree attaqué na ay opposants mais ci pouvoir bi lañ war a dal ñooñu il faut que ñu sóoraale leen xam lu tax ñu dugg ci élection yi ak lu tax ñu dugal leen léegi nag loolu lépp boo ko xamee léegi nag danga war a xam fi nga jëm. da war a xam fi nga jëm ak ban Sénégal nga bëgg ëllëg danga bëgg Sénégal bu des ci franc CFA yor xaalisu tubaab yi te bëgg cee tekki kenn du tekki ci poosu jàmbur léegi est-ce que da war a xaar Sénégal boo xam ne tey jii sunu géej dañ koy jël jaay ko tubaab yi ba suñuy xale yi nekkoon ci dëkku tefes yi yaraax ndar te tëngéej sumbejun ak feneen ak feneen dëkk yooyu xale yu bari dee ba ci bar ñi parce que dañoo mbëkk gaal yi parce que ci napp gi lañ doon liggéey waaye napp googu jël nañ ko jox ko tubaab yi ña ñoo leen ko jox mooy système bi fi nekkoon parce que yéen ngi fàtteklu coowal licence de pêche yi ci nguuru parti socialiste ak Ousmane Tanor Dieng kon licence de pêche yi ñuy jaay weesul du tey léegi nag ndool ak nekkin gi ñu nekkee est-ce que danoo war a continuer di am un président boo xam ne tey jii day mën wax rek te du mën jëf da ngay dégg ñun la jomaay mënul wax Aliou Mamadou Dia dafa sedd dégg nañ pourtant. mbir mi du sedd wala mën a wax mën a jëf la xoolal journaliste yi fi nekkoon ay candidat journaliste ñu dénk leen ay gox lan lañ ca mën nit ki du nu mu waxee mais nu mu jëfee la Pape bi ma toogoon TFM 2S bi wax mais bi mu ñëwee ci politique ñu mettre ko à l'épreuve da ngay sentir ni des na kon mbir mi du wax mbir mi mën a jëf la ndax bari na ñu fi wax ku leen dénkoon app seen youtube sax duñ ko doxal kon mbir mi du diw mën na wax du diw mën na solu te senegal nag fi mu toll wagasu la de ak simeeku takku takkaay nakaala day njëkkee ci ndiggi doog a egg ci loos na nga ko dénk liggéeykat waaye nit ki na mu solo na mu waxee nan xool borom loxo yi set wicc nan xool ku jub nan xool ku maandu nan xool ku yërëm askan wi nan am un président ku nu qui nous rassemble et qui nous ressemble moo koo xam daf noo nuru nan xool ku mel noonu ku ñu nuru mooy kan ñu ni la population bu Sénégal ñi ci ëpp ay baykat lan ki nuru baykat yi kan la nan ko xàmmee ki mën a taxawu baykat yi kan la nan ko xàmmee ki nuru monde rural kan la nan ko xàmmee il faut ku ñu xam fu ñu jëm te ñeme ko def changement wala ñu def rupture wala boog ñu tànn continuité des ak li ñu desoon fii tànn sa bu la neex la kenn du obligé kenn mu def dara mais ñun dañoo am droit ubbi nit ñi seen xel ne leen dem leen ci lii ak lee jàll leen ci lii parce que sénégalais danoo am amnésique danoo gaaw fàtte te suñu autorité yi loolu la ñu jàpp ba ñu yàpp ñu xeeb ñu ba foog ni nit mun na fi ne 12 ans def lu ko neex xëy bëgg a soppeeku mel nu kenn melul noonu kon choix yi mi ngi nii. nanu tànn première wala deuxième tour léegi nan xool kan moo gën ci ñun te gënal ñu nan xool kan moo ñu tegal un programme parce que am na ci ñoo xam dan lay wax programme mais teguñu dara ci loxoy sénégalais ci programme mu jàmbur la nekk di ŋawti ñëpp ci programme mu jàmbur la ñu ne lu tax mu ne bi lu tax vice président lu tax li lu tax lee ñu maytul aussi les candidats de la France parce que nag buum gi ñu seq ak France dañ ko a dog dagg ko tëb. la Youssou Ndour wayen ci 44 44 indépendance da ngay mooy da ngay moom sa bopp gëm sa bopp mën a doxal sa bopp ba mu koy way yàgg na mais est-ce que mën nañu suñu bopp ñu ngi doxal suñu bopp tey jii li gën a ëpp solo ci réew ñun dañ kaa perte mooy sunu commerce suñu économie ci loxoy ay étranger la ne. loolu aussi ki war a ñëw ëllëg souverainisme boobu ñuy wax war nañ ko appliquer ñu fexe ba li meññee ci réew mi waa réew mi di ko jariñoo enregistrement nag mun na am mais ouverture mun na am waxuñu dañuy tëju duñ yaatal kenn ndax su suñu doomu réew da leen yaatal feneen mais réew yi mi ñu bokk juddoo fi màggee fi li fi ne dañ ko war a jariñoo léegi nag li ci des mooy képp koo xam ne doomu Sénégal nga bu dimanche ginnaaw ba nga jëlee sa carte parce que tamit carte yi ñi ngi taxawaalu ci commission yi ñii nee nan carte ya fa ne dañ ko jaxase wala kii waaye na leen jaral lu ne képp ku Sénégal jaral dee wala Sénégal jaral la mbëkk gaal loo cay Sénégal jaral la kaso kooku Sénégal war na la jaral nga ñàkk une pour jëli sa carte Sénégal war na la jaral nga ñàkk une pour dem wote ji wote ji nag nekkul da ngay dem gis kii bi nu mu tudd bureau yi naan non sama tur nekku fi na la jaral parce que occasion bi du occasion bu nu war a raté occasion bi du occasion bu nu war a manqué. lépp lu mu jaral triant yi ak nguur gi pour ñu sàcc nanu ko jaral ba sàcc bi du rëcc bu boobaa dinañ am Sénégal bu neex te bis bu ñu amee fulla ba teg fi ki ñu neex billaahi walaahi talaahi keneen ku fi falu duñu yawati dina xam ne sël le peuple au souverain kàddu gi ñun rek ñoo ko yor muy Diomaye di Aliou Mamadou di Anta Ngom di keneen ak keneen billaahi walaahi du ñu yàpp ndaxte cinq yàggul ku mu fi fal nga ñëw la nga waxoon defoo ko ñu dindi la ak keneen fii ba deux cinquante bu laajee ñu am cinquante président nañ ko am du ñàkk bis bu ñu yàggee di làmbatu bu ñu yàggee di làmbatu dinañ am un président ñun bi ñu bëgg sacrifice yi Cheikh Tidiane Dièye def un républicain un homme de valeur xëy mën na bàyyi lépp ay intérêt pour l'intérêt du Sénégal peut-être mën nañu wax ni intérêt politique la sacrifice yooyu ñun ñëpp nañu ko jaral ba ñu xàmmee candidat wu système bi ak ñii anti anti système lu ak ñiy waay anti système parce que 60 ans mënuñu ko dund ak benn système bëgg a des ak loolu 64 ans bu dee ne 64 ans yi moom doy na leen neex na leen waaye waaye sénégalais mi ngi noonu dem leen ak libéraux yeeg tappalekat yeeg affaire rek ay kii ak ñiy sàcc sunu alal. bu dee nag da ngeen bëgg Sénégal boo xam ne ay loxoy set wicc ay borom xam-xam yée yéene réew mi ëllëg Sénégal a ngoog des fois ñun la diw xale la lan mooy xale lan mooy xale amul expérience aventurier loolu il faut aussi ñu bàyyi ci xel kon mu doonoon rek waxtaan woo xam ne dañ ko doon waxtaan ak sénégalais yi dimanche un grand jour képp ku am carte na dem voté ji képp ku amagul carte na nga ko jëli bu dimanche boo ñëwee nga def vote bu réfléchi xalaat tànn ki gën ci réew mi te gënal la léegi nag ñaar rek moo fi ne mooy changement ñu jóge ci système bi ñu ne am beneen système wala boog ñu ne bëgguñu changement danuy des ak système bi fi ne loolu nag c'est la responsabilité de sénégalais responsabilité ku mu ne ci ñun parce que ku mu wax ji li muy bari bari man benn carte rek laa yor jeex na. kon di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo di leen gërëm baax di jégalu ñëpp nag ñun fi tudd seen tur tamit te neexu leen ñu ngi leen di jégalu baax di la baalu àq di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah euh, beneen alxamis day fekk ñu am beneen président yàlla na doon ko gën ci réew mi.